Dan dafa jaral lu ne. man góor du asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy iya, yëy. Iya. li ma ngi jaba tey. Eh. lu wax ji di gën bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix tour prix tour. xeex mu joo xamante sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxum laaj nag ñu dugg biir rek la yow may la wax man la ku ne ñu tàngoo yàqu yaa ngi seetaan lamb de. waa lamb ju neex. maa ngi lay ziar mon frère. kontaan ci yow. di ñaan ci réew mi jàmm. di am contentement parce que yaa ngi doxal li nga yor yaa ngi avancé. te loolu rek la réew mi soxla. nit ku ne war ngaa doon champion ci la nga nekk. maa ngi lay félicité. publicité yaa ngi jàll. am nga fayda gëm nga sa bopp. li yàlla wàcce nag da ko wàcce jox ñu ko. waaye ku amul fayda doo ci bopp. kon en tout cas du courage maa ngi lay kontaane lool. am na solo waaye coowal làmb ci promoteur ci mbër ci événement bu mag ci lépp coow la mais bii yoon dafa am beneen coow boo xamante ne xalaatuñu woon ni mën na juddu muy ñu war a teg président CNG bu bees moo xam dañuy renouveler mandat président Bira wala dañ ko fiy jëlee indi keneen est-ce que war na mën a jur ñu woo kuréelu làmb yëpp ku ci nekk ñu laaj la sa xalaat ko joxe sa xalaat 15 jours. mënuñoo jël kenn ku war a mën a jiite CNG wu làmb man nag gisuma ci coow li ma gëm mooy yow da nga taamu jël micro man ma bëgg a doon yow nga bëgg a doon mbër keneen bëgg a doon leneen kon kenn ku ci nekk yaa choisir ne lii laa bëgg waaye respectel Baye Djili mais respectel Abdoulaat na la Abdoulaat jox sa cër problème bi loolu rek la parce que ku nekk yaa am sa yaa préféré li nga bëgg a doon kenn oowuloon la li ngay def amul école buñ koy jàngalee sa choix la kon ñu respectante problème amu fi ku nekk nee lii la bëgg a doon yaa ne li nga bëgg a doon li nga bëgg a doon yàlla defal na la nga yow da nga bëgg a doon mbër kon yow soo taxawee ni bila seen nga àndal d'accord na ah man ma taxaw ni man au de bila yow nga ne malik nga bëgg andal amul problème na ku ne xol nga bëgg andal nga andak mom man gisuma ci ben danger mais li doy war moy da nga andak ak man dama andak malik Malick Ngom waaye yow li nga yor baaxul lu ma yor mo baax lolu moy indi manque de respect moy indi xol yu jog amul danger ñun ñëpp ñoo far ñoo bop lamb ji waaye nag bu ma audace bané li la bëgg nak ma bàyyi ak li ma bëgg waye yow li nga am audace ba gëm ko na la bàyyi ak mom lu yàlla doxal ni moo war a toog mu toog man loolu laa gis mais coow léegi yëpp boo ko toppee man ngaa dem ba yow nga patte sax sa bopp te warul demee noonu question de principe la yow kii nga sentir ne dina doxal kii sentir leneen bàyyi ko xalaatam doxal sa xalaat man loolu laa gis mais man gisuma danger gisuma ñu benn coow ku jël sa bopp nag saam ko ci presse bi kooku yow la quoi loolu laa gis. mooy rôle ci njabootam mu woo leen ñoom ñëpp ku ci nekk joxe xalaatam mu laaj leen ñoom ñëpp ku ci nekk am koo xamante ni moom la ñu yaakaar ne mën nañ ko mën nañ ji jiite làmb gis nga moom lan mooy rôle am ci biir làmb ci moment bu toll bi dèjà dafa bari ñuy wax ci làmb te xamuñu ministre bi woo nañu dem leen andil ba li ngeen bëgg andi nañ ko bare na ci mais wéy la problème mais ñun du ñoo koy forcer ni ko lii ngay def il faut ñu xam ne ministre bi président la république moo ko teg chef du gouvernement teg ko nañ ko bàyyi mu libre lim bëgg a def moom la engagé ñun pare nañu lim ñu laajoon def nañ ko moom moo ci des man gisuma du ma attaqué ministre du ma naññ benn homme d'état jotewuñu ak ñoom dara seen liggéey la dañ leen dénk am réew mu yor essor bi boole ko yeneen ñaari ministère muy ñett déjà démb rek dafa voyagé woon dégg naa fan yi nekku fi mais il faut ñu xaar mu jël décision def li mu bëgg a def mais man du ma ko forcé du ma ko ne naaj na du ko ne teel na moom la yàlla teg foofu dañ ko bàyyi mu def liggéeyam man loolu laa gëm. activité làmb promoteur bu tëgg sa xel dalul ndax dimanche bu jot nga jàpp ni combat du am ba démb démb ah ba démb démb ñu ci bari ci information samedi ñu ngi naan làmb samedi ak dimanche làmb du am. ministre bi mais bi ñu na yónnee ja làmb làmb lamb ji ubbi làmb ji mais bu ko neexoon mu ne kenn du ubbi lamb ji il faut gars yi bàyyi koog li mu moom moom moo yor loolu moom la moom moo am doole jooju man dama gëm loolu parce que man Abdou Lahat mii dama fekk ci li ma yor nga bëgg a ci damay bañ nañ ko bàyyi ak xelam mu dal lu mu def nañu neex bu ko neexoon duñu woo bu ko neexoon tëj lamb ji ba janvier mu ubbi ko loolu moom la na ñaari lamb yi waroon am retard bu ci nekk bind na kayit lamb ji continuer gis nga bàyyi ji di ñun aussi ñu topp affaire bi ba perte sa image ministre bi mi ngi def liggéeyam mais nañ ko xaar nee nañ dafa voyagé ku ne dégg na ko sa nopp mais wéy la problème mais ji di ñun ay responsable lañ mais ñun dañu yor ay métier dañu am ay jabar ami doom mais pourquoi ñun. mënuñu respecté ministre bi déglu ko ci moom ba mu pare li mu bëgg a def man gisuma loolu man bi mu laajee bi mu laajee nañ bind authentique dafa bind Ameth Diop mi ko yóbbu bi mu ñu woowee ministère dañ ko wuyu liste bi sama tur bu ci nekkoon du dem bu ma owul du ma ko wuyu mais nañ ko respecté bàyyi ko cërëm mu doxal man loolu laa gëm mais pas ay dafa jot ak temps bi mu ñu xaar la noo man gëw ma loolu dañ ko bàyyi ak tey ba kanam man loolu laa gëm man gisuma benn danger ministre bi bu ko neexoon tey mu ni làmb ji du am fii ak janvier doo ci man dara parce que moom mooy moom loolu moom la engagé cëram la moom cëram mais làmb jaa ngi dox amul danger gisuma ci benn problème gisuma ko. président des lutteurs ak activité muy président Gris Bordeaux dafa génnee communiqué ci guddi gi mu félicité ki nga xamante ne mooy Malick Ngom. wax que ni li ñu doon xeex am na mooy président Malick Ngom jox nañ ko li nga xamante ne mooy bopp CNG bi yaakaar naa ne audio yi àdduna bépp jot nañ ci yow bi nga ko déggee ban yëg-yëg nga ci am am na ci droit am na droit félicité ko man de félicité wu ma kenn ndax xaw ma li xew en tout cas ministre ba mu génnee xamal na ni dara amagul donc loolu moom mënu ma cee sori loolu moom mënu ma sori ndax man de dëgg yàlla ministre bi daal laay déglu su ma déggee ci noppam lu mu wax danaa ko valider waaye du ma déggul ministre bi wax mënu maa wax ay dégg naa loolu duma ci wax vraiment parce que nous sommes des responsables aussi dégg nga ministre moom tant que dégg ma ci gémmiñam man mënu maa wax. lay jaajëfal. merci encore mon frère. merci. Diamond Event. sama copain. lu dëgg ah, ma. waaw si benn association. secretaire maay général. association ba ba ñu waxtaanee man lañ jiital man maa demoon ministère maa déposé lettre bi maa bind maa def lépp man daal si association bi laa topp te avant ñoo def lépp ñun ñëpp dañuy booloo toog waxtaan ba ñu waxtaanee ñu trouver solution ma dem déposé sama lettre. yéen waa association bi yaakaar naa président Bira ngeen àndal. waaw waaw moom la àndal waaw ñun moom président Bira lañ voté. kan ngeen ànd ak moom. waaw le choix en est que xam làmb xam ni Bira dafa liggéey. su liggéeyul woon dañ naan ko liggéeyoo indi na ay changement yu bari tamit si làmb mais ku neex tamit am nga droit faral ku la neex neex ndax dëkk démocratie la ñàkk quoi ku neex am nga sa candidat duñ bañal kenn loolu mais ñun lu tax ñu faral Bira man mun naa ko défendre mun nañ ko défendre cause bi parce ko xam ne xam na si làmb indi na ay modification yu bari si làmb waaw jaay borom ko naka équipe bi non yëg naa ko 2-0 ma jëli te trois te waa Manko dañ ma waxoon ñoom dañu encaissé ren bii si stade bi mais dama samp sampaale la dañuy tase dañuy tase waa départemental la. looy xool maa ngi lay nuyu. waaye ziar la. Fall mbaa yaa ngi ah maa ngi jàmm ngi. lu dëkk bi wax ah. lu dëkk bi wax. ah dëkk baa ngi sant yàlla ak sant suñu borom. fi mu toll yi promoteurs yu bëree bëri ci làmb instant yi ñu ngi ci njàqare ndax joxe avance jàpp dat ñuy xool bu dimanche jotee ñu ne est-ce que dina am wala du am. yow en tant que xalé bu nga dugg ci lamb ban yeg yeug nga ci am. wa loolu mom dañ koy neexu ñu dañu ñaan ministre bi mu gaawal loxom ndax bo tege sa lamb yo say ay millions ba suru lamb ñaan lamb yi am loolu dafa metti seulement si promoteur bi mais si yi ndaw yi war bëre loolu dafa metti loolu dañu ñaan premier ministre ministre sport bi mu jappalé lamb lu mu gëna gaaw rek mu tek fi wara nekk. lan motax lamb lu ñu dugg rek mu ànd ak coow seeni rawaan la. yéen yéen promoteurs yi la wala mbëru làmb yi. non làmb ma coow làmb ma ànd coow mais coow boo gis ci jàmm lay mujj te làmb dafa ànd ak wax nañuy def jàmm di wax jàmm rek. diggante Bira Sène ak ki nga xamante ne mooy Malick Ngom est-ce que war naa mën a jiite jur diw mooy jiite làmb diw mooy jiite làmb yéen ngeen ci nekk. ñoom ñuy xëccoo yëpp njëriñu làmb moo leen fi bàyyi mi Bira Sène mi Malick Malick si làmb nekkoon Bira jiite ko. tey bu ñëwee laaj CNG loolu dara mais la majorité de parti bi ñëpp Bilal la ñu àndal mën na gagné mën na ñàkk gagné ku ñu fi teg rek ne ñëw yokk làmb ñun ko yokk la ñuy wër mais i ñëwuñu pour wàcce làmb que le meilleur gagne bu amoon yooyu dénk madame la ministre des sports lan lay doon moom li ma koy dénk mooy mu geesu làmb xam ne làmb fa euh, làmb développement la boo seetlee jaagatu ndox yi jaagatu keree mi ñi jaay bee sécurité ñëpp si la ñu yaakaar léegi boo ñëwee ba tëgg sa làmb ba ba weekend bi amoo la yóbbu sa kër neexul lu mu mën a gaaw jàppale la wax la làmb moo ñu gënal mu yeewu gaay ndax moo téye ñëpp bu yeewee gaay rek léppay léppay neex waaw kontaan naa yal na yàlla fay yiw kontaan waa jàmbar di nuyu waa jàmbar yëpp wasalaam liggéey bi am na solo jàpp rek day baax jaajëf maa lay siyaar delloo siyaar bu baax noo gisee làmb tey waaw làmb jam ci contentement gu rëy rëy rek ànd seeg suñu doomu ndey suñu Ah, Ibra Diouf Mbewaan muy tëgg tey di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm waaw làmb ji moom macha allah waaw rek dégg nañ si bu baax a baax. Ndiaye Sa waay maa ngi lay maa ngi sant yàlla làmb ji tey. Ah, macha allah neex rek ni ñi doon namoon làmb trop mais tey moom ku ñëw di nga mandi làmb quoi. di ñaanal ah, Mbewaan production journée bi yàlla def si réussite totale daal oui macha allah. lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix tour prix tour. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir yéen. foo rek léegi maa la gën a xotteeku fuuf. xotteeku yow man man may yàq la wax. man a yàqu. waaw maa la gën a xotteeku. ñu tàggoo